ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون mbokk yu tàdd yi ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci suñu ñaareelu dërs ci tafsir bi ñuy jéem ci téereb yàlla bu tedd bile alquranul karim borom xaashiyatu saawi على tafsir al-Jalalayn dana tudd waxi sayiduna Abdullah ibn Abbas ne alquran sama borom ma ngi ko wàccee jumlatan waxidatan ci mbëmbëstal ci asamaanu dunya ci barab bi ñuy tuddee baytul izza ci guddig laylatul qadr waaye gannaaw ga nag bu soxlaay laaye wàcc mbaa saar wàcc jotee mu jël ca loole wàccee ci yonantu sallallahu alayhi wa ni mu ko ko waxee ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لأن يعني واتيكا بيت العزة ترتيب بوب موي ترتيب بين خمتي سورة الفاتحة بقرة توبوج آل عمران النساء ما إلى الأنعام الأعراب الأنفالباء لإخلاص فلق ناسي waaye biñ koy wàccee nag ñaar fukki at ak ñett yi yonentu sallallahu alayhi yore mission bi du ci tartib boobu ba yëf ya jeexee nag tartib booba dellu siwaat ndax lu ñëw rekk yàlla dafay wax yonentu lii fii la dëkk lale la bokk kon wàcceeg ممبس تلغي موي انزال إنا أنزلناه في ليلة القدر واتشك تفسيلغي موي تنزيل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نزل عليك الكتاب بالحق nga gis xat différence u inzal ak tanzil aha nee na juróom-ñetti fukki saar ak ñett ñoo wàcc Makka imaam sawi nee na juróom ñetti fukki saar ak ñett ñoo wàcc mag ñu njëkk hijra nee fanweeri saar ak benn ñoo wàcc Madina li njëkk a wàcc ci Makka mooy Iqra li fa mujj a wàcc mooy ankabut ñi ne muminuun ñi ne mutaffifuun saar wi njëkk a wàcc madina mooy baqara wi fa mujj a wàcc mooy maayda yenn ci saar nag wuute nañ ci makka la wàcc madina niki suratul fatiha waaye li mooy màkk la wàcc te daañ ci dikk bu ñu yegsee ci tafsirul fatihati nee waaye mën naa am mu wàcc ñaari yoon lu jàppandi la waaye aaye ji njëkk a wàcc nag ci lu dul benn werante mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana alaq لا يجب مجوات على الإطلاق لأن ما يوتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لأن القرآن ننينتي خاج له خاج بو خمني أمنا ناسخك منسوخ لأن لول داكو فك تي نيار فوكي سار أك جيروم xaaj boo xam ne man suuxu rekk a ca nekk ne daa ko fekk ci ñeent fukki saar xaaj boo xam ne naasix rekk a ca nekk nee na daa ko fekk ci juróom benni saar ak xaaj boo xam ne naasix nekku ca man suux nekku ca nee na daa ko fekk ci ñeent fukki saar ak ñett la ca gëna nët min kiropoyo bo mujjibe anan kaaru alquran bo mujjibe ah, alquran nena haaj jenga ca wo xamne da ca fekk laaya ji ñëw di folli laaya atte bu ñëw di folli atte daa fekkit atte boo xam ne folli nañ ko nee na loolu mi ngi ci ñaar fukki suura ak juróom xaaj boo xam ne daa fa fekk luñ folle waaye doo fa fekk luy folle nee na loolu daa ko fekk ci ñeen fukki suura ak xaaj boo xam ne luy folli rekk nga fay fekk waaye doo ko fekk luñ folli nee na mi ngi ci juróom-benni suura ak xaaj boo xam ne la fa nekk yépp folliwut folliwuñ ko nee na xaaj boobu daa ko fekk ci ñeen fukki suura ak ñett nee na xarafi alquran nag tollu na ci un million zéro vingt cinq mille million yu teg ñaar fukki junneeg juróom ci xaraf nee na mooy xarafi alquran Mhm. ne booy xool darajaay aljanna noonu la toll diggante daraja ju nekk morom ma nag dana nekk distance tukki bu tolloog juróomi téeméeri at ak rëy kaar saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin yàlla bu ñu ump yaa rabbi nee na nombre ayaatu alquran mi ngi tollu ci six mille six cent soixante six juróom benni junne ak juróom benni téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na alquran xaaj ba booy konte laay yi jógee fatiha baqara jëm suuf nisfu wa ci kemtalaayu laayaat yi ci suratu shuara nga koy fekk ca wax yàlla jëm naan fa alqaa muusa asaahu fa ida hiya talaqafu ma yaafiku ne bu dee xaraf yiñ la tuddal nag gen wàll ga ma nga ca laqad jita shay'an nukuran laqad jita shay'an nukuran ga ca suurat alkahf nuunu nukuran gu njëkk gi nuunu nukuran gi nee ci xaaj bu njëkk bi la bokk kaafu nukuran gi bokk ci xaaju alquraanu ñaareel bi xasabil xuruuf nee na booy xool genn wàllu alquran nag bi xasabi suwar mooy suratul xadid suratul mujadila daal di tàmbali ñaareelu xaaj bi ndax xam nga ne saari yi cent quatorze suura la boo ko divisé par deux xaaj bu njëkk bi mu ngi jeexee ci xadit mujadila tàmbali xaajub ñaareel bi jëm suuf nee baati alquran yi nag soo leen dee wàññi ñu ngi toll ci soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñaari junne ak ñeenti téeméer ak juróom fukk nee baat boo gis ci alquran nag ñeenti xam-xamam ci nëpp xam-xam ci zaahiram xam-xam ci baatinam xam-xam ci xaddam ak xam-xam ci maqtaum waaye boo xoolee tanaasubu laayaat yi ak laaya bu ne tanaasubam tanaasubam ak laaya ba ko njëkk ak askananteem ak laaya ba ca topp nee na xam-xam yi day gën a bari nee na ñi nga leen gisee ñu toftale leen nee na tawqiif yi la yàlla ko digal yonantu mu defee ko nii kanta tur yi nga xam ne ñoom lañu teg nag ci kaamil yi ak ni ñu séddalee kaamil bi def ko ay ushur ak ay rubu ak ay thuluth ak ay juzu ak yooyu borom xaashiya daf ne min al xajjaaj al thaqafi am borom xam-xam yoo xam ne dañ ne fa min al mutaaxirin lu xew daal ci njàngaleem saxaaba yi lañ ko jëlee turu kaamil turu saar yi ñu di leen bind ci kaamil bi ak seenik farlu ngir yombalal ñu mel ni ñun moo tax xajaaj lu muy doy waar doy waar am na ñu ko amal yaakaar ci xidma bim xidmaal alquran ndax tamit lu am solo la dana yombalal xew dana yombalal dana yombal waqf ngir ñu tàmbali tafsir sura bi njëkk ci sura suuraril quran suuratul fatiha ñu gëstu li ñu sama borom tabaraka wa taala wax fa ida qara'ta al-qur'an فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ma tax boroom xam-xam yi di ko firi balaa ñoo firi fatiha dañuy firi istiaada audu billahi min alcheytaani irrajim audu dana ma laqu audu dana ma wut kaaraange ci bi dana ma wut kaaraange boo xam ne mooy aar sama diine ar sama adduna ar ma ba duma def luñ may tere ar ma ba dara duma tere def liñ ma digal maa ngi laqu di muslu billahi ci yàlla mu musal ma min alcheytaani di cheytaani alrajim te da kuñ jam te da kuñ dàq ci xadara yàlla xañ ko yërmandeem yërmande yàlla tabaraka wa taala audu billahi min alcheytaani arrajim bokkul ci alquran waaye yàlla moo ne soo nammee jàng alquran na nga muslu ci yàlla ci cheytaani so de jang alquran nanga muslu ci yalla ci shaytan so jange alquran nanga muslu ci yalla ci shaytan fa idha qara'ta man na nek ci tambali man na nek ci digg ba man na nek ci muj ga waye bul tambali muk te musluwa yonentu wax nañ ne sallallahu alayhi wa sallam su jogan guddi di julli bu kabbare da fay wax a'udhu billahi alsamici alalimi min alcheytaani alrajimi min hamzihi wa nafxihi wa nafthihi min hamzihi wa nafxihi wa nafhihi hadis ini akhrajahu ashabus sunan wala sahboy jangga alquran yangi muslu lah ci yalla ci setan ndax yalla waxna ne so jange alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati حجابا مستورا سوهيو جانغي القرآن يو ينطب صلى الله عليه وسلم سوهيو جانغي القرآن يو جلد بي يالا ندفنا سدقنتي ak ñi nga xam ne gëmuñu alaxira xijaaba mastura kii raay ku lay muur ba dootuñu am accès ci yow pour lor la moo tax jamonoy tiis ak mbas mi ñu tollu jullit bu nekk na def alxuraan muy ngànnaayam fu mu tollu di ko jàng rawatina nag weer wi ñu toll du weeru baraxlu nga xam ne weeru jàngkatu alquraan lañ ko daan tuddee xam nga foo dem ci àdduna bi ndax mbas mi xew virus bi ñu tuddee covid 19 wala coronavirus tax na business yëpp ngi tëj ñëpp ci kër yi waaye mag ñu baax ña saxaaba yi ak asalafu saalix ñoom caabaan lañ ca daan góorgóorlu di ci jàng alquran ci façon bu kenn mosul gis mag ñooñu mag ñu baax ñu jiitu ñoom dañ daan tëj seen business yi caabaan ngir lan soxla woo jàng alquran naka nag ñun ñi nga xam ne réalité àdduna ak li xew forcé nañu ba ñu tëj business yi est-ce que kon dañoo war a toog ci kër yi di download ay Netflix di jouer lido wala Belote wala nekk ci WhatsApp yi di wëcc wëcc wëcc mbaa di dugg ci loo xam ne suñu yoon nekkul ci est-ce que warul nekk occasion pour ñun ñu góorgóorlu ci jàng alxuraan ngir yàlla dox suñu diggante ak mbas mi nga xam ne ñu ngi werante ndax yéeféer yee ko créé walla lu jóge asamaan la buum ci mënta doon musiba ba وجنغي القرآن يال فقالك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وتخ صوبرم ديغنيتي القرآن ne bu ñu jàng alquran nañu muslu ci yàlla ci cheytaane wax ñu it ne bu ñu jàngee alquran mu dox suñ diggante ak ñi gëmul alaxira te cheytaane yi seen seen seen chef nag أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة الفاتحة makka la wàcci ñii ne medina la wàcci am ñu ne ñaari yoon la wàcc benn yoon ca makka bi yàlla farataale julli ak benn yoon ca madina ba mu digalee ñu soppi xibla bi jóge baytul maqdis jëm ca kaaba ga ñu sax looloo tax ñu tuddee ñii ne genn wàll ga makka la wàcc genn wàll ga madina waaye li wér mooy makka la wàcc ndax walaqad aataynaaka sabaan min almathani wal quraan al azim laaye jooju yàlla di wax yonantu ñaa la jox sabul mathani ak alquran ju màgg ji te sabul mathani yonantu nee na mooy fatiha te laaye joojoo ngi wàcc ci suuratul xijr te suuratul xijr makkiyatun la bi ijmaa ñëpp dëppoo nañ ca fatiha it kenn du am julli te jàngul fatiha te julli ñu ko faratale makka te imaam qurtubi nee takkuñ fu ñu jullee te faatixa bokku ca te julli makka lañ ko farataale kon loolu li muy firi mooy suuratul faatixa saaru makka di juróom-ñaari laaya am nañu tudd juróom-ñett am ñu tuddu juróom-benn waaye ñaari wax yooyu yëpp des le di delloo li wér mooy juróom ñaar te loolu la ulama al muhaqiqun al ulama al muhaqiqun wax juróom ñaari laaya la di saar woo xam ne nag moo gën ci saari alxuraan yi moo dajale it alxuraan lépp lu alxuraan di jàngale mi ngi ci saar wi bu dee cosaani diine ki banqaasam pas-pas ak jaamu yàlla yoonal mooy législation ak gëm bés pénc gëm melo yàlla yu rafeti wéetal ko ci jaamu yàlla wut ndimbal ak ñaan ci yàlla jublu ci yàlla kot sàkku nginde ginde ginde euh, maanaam gindeeku jëm ci yoon wa jub siraatul mustaqim ak torox lu ñeel yàlla ak jaar ci moom ngir mu jaare la fa mu jaarale woon ñu baax ña musal la ci fa ñu bon ña jaaroon almaxduba alayhim wa dallun ak xabaar yi uma yi umam yu njëkk ya ak na yàlla def ak ñoom ña ca texee ak ña ca texee di yépp mi ngi ci fatiha moo tax yonentu ci xadis joo xam ne mi ngi ci imaam ahmad ci musnadam ubay ibnu kaab dafa tëri ci moom fatiha yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan a ngi ci loxoom wàccewuñ ci tawraat wàccewuñ ci linjil wàccewuñ ci zabur wàccewuñ ci furqaan lu mel ni saar nga tëri muy suratul fatiha ne ko hiya sab'ul mahaani mooy juróom-ñaari tagg yàlla yi ngir faatiha yëpp day tagg yàlla walla juróom-ñaari ñaar ñaaral ndax faatiha loo ci gis dañ ko ñaar ñaaral rahmaani rahim rahmaani rahim iyyaka na'budu iyyaka nasta'in siraatal mustaqim siraatal ladiina mu ne ko mooy sab'ul mathani mooy alquran ju màgg ji nga xam ne jox nañ ma ko ndax yàlla moo ne ko wa laqad aataynaaka sab'an min al-mathaani wal qur'aan al-aziim saaru bëri tur la ngir dafa bëri ngëneel te bëri tur dafay tegtale tedduk la ñuy tudd gaynde dafa bari tur ndax mooy sang rab yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa bëri tur ndax mooy sang mbindéef yi yàlla dafa bëri tur ndax mooy yàlla tabaraka wa taala alxuraanam jiit bëri na ay tur wax nañ leen ci daf bu weesu ne tur yi ñaar ya ci gën a siiw mooy alquran ak alfurqaan fatiha yi mu ëpp tur ci saari alquran yi ndax moo ci gën tuddal nañ ko lu tolloog ñaar fukki tur danañ ko tuddee fatihatul kitab ndax moo bi téere bi dañ ko tuddee umul quran ndax lépp lu alxuraan di jàngale fatiha mëmbëstal na ko mooy ndey alquran danañ ko tuddee alkanz ndax ndàmb la lu wàcc ca suufu arsh dañ ko tuddee alkaafiya ndax doy na wallis lu dut moom te dara doyut wallis ko dañ ko tuddee alwaafiyatu ndax moo matale moo doy ci wetug julli ci ku ko mën dañ ko tuddee ashaafiya ndax loo ko jàngal mbaa ko jëfandikoo jàngoro jumoo jumu mu faju danañ ko tuddee ashifaa u tamit shaafiyatu mooy aji saafara waaye shifaa u mooy saafara ci boppam ndax saafara la ci bépp jàngoro dañ ko tuddee sabul mathani ndax mooy juróom-ñaari laayaat yi nga xam ne ñoom lañ ñaar ñaaral wala ñooy tagg yàlla danañ ko tuddee an nuur ndax leer la dañ ko tuddee ar ruqyatu ndax dafay mocci saxaaba ya tukki woon te ñu bañ leen a ganale te njiitu bërëb ba jaan matt ko faatiha lañ ko luggee bu ñëwee yonentu saxal ko wax leen ne leen lu leen xamal ne lu la xamal ne faatiha ruqya la ne leen lekk leen gàtt yooyu ñu leen jox te jox ma ci sama wàll ngir saxal ne dagan na moo tax léeg-léeg nit ne la faatiha alquran des ko téere la rek code dafa mel ni code de la route walla dafa mel ni loi alxuraan ëpp na di loi ëpp na ko wax yàlla la waaw lu tax nga jàng ko rek nga am ko ca rawatina suratul fatiha danañ ko tuddee suratul hamd wa shukur ndax saaru sant yàlla la ak waaw jox ko la moom dañ ko tuddee saaru ñaan addua ihdina siraat almustaqim dañ ko tuddee taalimul masala ndax masala yépp la làmboo dañ ko tuddee munajaat ndax ki koy jàng mi ngi déyaaleeg borom bi dañ ko tuddee tafwid ndax ki koy jàng mi ngi joyal mbir yépp ñeel boromam wa ufawwidu amri ilallah dañ ko tuddee su'al ndax saaru laaj yàlla la dañ ko tuddee ummul kitaab ndeyu téere bi mook ummul quraan quraan ida quri a wal kitaabu ida kutiba waaw dinañ ko tuddee fatihatul quraan moo ko ubbi dinañ ko tuddee suratu salaah ndax julli du wéree ci ludut fatiha ci ku ko mën ngir xabaaru qasamtu salaata qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn sama borom ci xadis qudsi mu ne séddale naa julli sama diggante ak sama jaam bi ñaari xaaj fa nisfuha li wa nisfuha li abdi xaaj bi maa moom xaaj ba ca des sama jaam wali abdi ma saal sama jaam bi lum ñaan ma may ko يقول العبد الحمد لله رب العالمين سجان بن الحمد لله رب العالمين يا الله نسمى جانبي سنتنما من الرحمن الرحيم من التقنما من مالك يوم الدين من جهنما ننغنا نما تد ما ممترانا مجدني عبدي سو إياك نعبد وإياك نستعين من لي سما ديغنتيل أك سما جامبي mooy jaamu man la ñuy jaamu lu mu ñaan ma jox ko mu ne ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addalin mu ne lii sama jaamam moom fa haulaai li abdi wa li abdi ma saal sama jaam bi la mu laaj may naa ko ko بس يونس صلى الله عليه wa وصحبه wa sahbihi wa sallama saxaaba mi ñu ne abu said la binul mualla ni ko imaam buxaari waxee radiallahu taala anhu yonentu daf ne ma xanaa duma la jàngal saar woo xam ne moo gën a màgg ci alquran balaa ngaa génn jàkka ci nee na yonentu téye sama loxo ba mu nammee ba ñu nammee génn ma ne ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax nga ne daa ma xamal saar wi gën a màgg ci alquran mu ne ma mooy alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mahani wal qur'anul azim alladi utituhu tuddee gi mu koy tuddee alhamdulillahi rabbil alamin tax na ñenn ci borom xam-xam yi ne mooy maanaa mooy wane ne bismillahi rahmaani rahim bokkut ca wuute bu rëy la jur ndax bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk wala bokku ci am na ñu ne bokkul ci fatiha bokkul ci benn ci saari alquran yi bu dul suratu tawba maanaam bu dul suratu bu dul bismillahi rahmaani rahim nga ci suratu namli ndax suratu tawba moom amul sax bismillahi rahmaani rahim fa nu wutewut ca Eh, dañ ko teg ci njëlbeenu saari rek sopp ñu di ca tàmbale moo tax ku mel ni Malik ak quraul madina ak basra ak sham ak seeni fuqaha mel ni Malik ak Awzaa'i ñoom nee nañu bismillah rahmaan rahim bokkul ci الفاتحة موتاح بوي جانغ فقه إمام مالك غدي غنيون الله وكره بسملة تعوذ في الفرد والسجود في الذوب كذا كور عمامة وبعد كمه وحمل شيء فيه أو في فمه ومن ابن عشر ويكمل إمام الشافعي رحمة الله عليه ak u makka ak kuufa ak seeni fuqaha mel ñoom abdullah ibn mubarak ñoom dañoo jàpp ne ci fatiha la bokk ak ci bépp saar sax wuute yu bari am na ci ngir ne dégg nañu saxaaba yi di julli te duñ ko ubbee ñii ne danañ ko ubbee waaye ci suuf lañ koy def ñun nag suñu sëriñ Cheikh Seydi Ahmed Tijaani radiallahu anhu dafa wuuteeg maalikiyatu yi foofu moom day jàng fa surat bismillah rahmaan rahim ci fatiha la bokk dañ koy jàng te dañ koy jàng ca kaw sax ci julli jahriyatu léeg-léeg nit ne xanaa moom duwuloon maaliki waaye ku toll ni Cheikh Tijaani xaraam na ci moom muy aju ci ngir ndax al maftuux alayhi lu aju ci ngir al waliyul maftuux alay ni ko borom rimaax waxe rawatina koo xam ne bu dul woon maftuux alay sax maj mujtahid la te al mujtahidu la yuqallidu taqlid ku amul rutbatul ijtihaad ci moom la dagan tabaarakallahu ndekete yoo duñ mën a dugg ci waati xaa ndax waxtu yi dab nañu kon nag ñu taxaw fi ba dellu siwaat soog a dugg ci tafsiru haadihi suurati al azimati al jalilati al karimati suurati al fatihati ñu ngi ci weeru chaabaan ñuy ñaan sama borom barke lan ñu ko dimbala ñu ñu dund ba fekkee weeru koor te woor ko ni mu waree koy ñaan tamit mbas mi matale àdduna قيل سماوي وقيل مختلق أنت أعلم قنا يا من خلق لمن دون رجع الله خم يال نيوكو يال فجل تدندي رجل تخلو جامي أب جلد دو بس يال لا رجل أب جلد دو دي يال لا رجل ab julit du paniqué ndax kasaw kasaw yi mbas mi duñu jot su ca yàlla andut duñ dee su jotut su ca yàlla ande mbaa mu jot lu ñuy ragal ci dajeeg yàlla yàlla nañu may yàlla ya rabbi yàlla nañu yàlla may yàlla ya rabbi nañu jël précaution yi war waaye bu mu ëpp toog ci di tit, ak di jaaxle ak di nangam yooyu du ko sottal te doxut jullit def قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يلنا يلا فغل نيو بسمي وايا فغل نيو لي گنا گراو بسمي موي نياك نغم راوتي نا تي جامونو يي تو كود دگلو تيليفزيون يي بو موي تو داغا نياك نغم نانيو فاي تيلي تي اوبي القران نانيو فاي تيلي تي اوبي القران نانيو فاي تيلي تي اوبي القران هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين